mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen radio ak rajo Futur Media benn waxtu ñu jukki leen xibaar yi. li ci gën a fës Ayib ba ngir Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle gi war a am e la demoon démb ñu ne ko doo fi dugg tey mu xëyaat caisse des dépôts et consignation ànd ak ci avocat yi di maître Ciré Clédor Ly foofu it ñu leen Robert Bourgi Touram siiw Sénégal. Sénégal France la Waye bokk na ci Politik politique bu Sénégal Limou Gisnak Mondine, Ousmane Sonko bo moytuwul du élection présidentielle gi am 2024 ndax Dir, Biko dessé, desee ci bidafagate. bi dafa Amadou premier tour te deuxième tour sax du Sorento cha Dougou, ay bandi ñoo fa or Akhalis. dépôt carburant bi explosé ca Guinée Conakry tiis gi metti na lool law na ba yegg si ci guinéens yi nekk fii ci Sénégal responsabilité bi nag autorité yaa fa nekk ya nekk ca bopp réew ma lañu ko joxoñ biti réew Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne junior yéen i kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM drogue beeg faux billets yi lëmbee réew mi la ñuy waxtaane sa mbay euh, moo nekk ci euh, machine bi Euh, Maysa mbay moo nekk ci euh, machine bi xibaar yi ñu euh, tàmbalee ko ak ki nga xamante ni moo di doomu France bi di Robert Bourgi nga xamante ni turam siiw na lool ci réew mi ci Sénégal waaye nag moom ci boppam bokk na ci ñiy gën a bàyyi xel politiku réew mi wax na ci mbirum Ousmane Sonko nee na daal boo moytuwul di bokk. ci élection yi am 2024 ndax dir bi ko dese ci xex bi dafa gatt geumul ne ci dir bi des Ousmane Sonko mën na song xeex bi ba jëlee teñdam ndam Amadou Ba nak mom néna gisuko ben ko yoon mu gagner premier tour té sax bu démé deuxième tour bu yé bo xamné du yomb ci mom Mohamed Ali Ba. Amadou Ba candidat bu bax la pour Benno Bokk Yaakaar waaye buñ sukkandiku ci Robert Bourgi mom mënul jall premier tour Robert Bourgi avocat la nekkoon ancien conseiller Afrique président Nicolas Sarkozy xam na bu baax baax politique Sénégal. Ce que je vais vous dire. en direct à la radio. man li ma lay wax ni moom la wax président moom la ñaanal Amadou Ba euh, waaye nag ci dëgg-dëgg jàpp ma ne Amadou Ba premier tour. mais je ne crois pas euh, dans la victoire au premier. bu fekkee ni nag am na second tour foofu itam jeu yi dañu ouvert yefi du yombe nonu pour Amadou Ba même bu fekkee ni président Macky Sall nee na ko moom jàpp ni Amadou Ba mën na jàll dès le premier tour. Euh, waaye nak lu ci ta am jàppale président moom fi mu taxaw sa taxaw dafa jàpp ni Amadou Ba mun naa jàll premier tour. Ousmane Sonko ak problème yi mu amal ak justice risque de forclusion yi avocat Ousmane Sonko yi ñu ngi def lépp ngir ki di Ousmane Sonko nekk candidat waaye bu ñu sukkandikoo ci Bourgi daanaka jàng jeex pour Ousmane Sonko. je ne euh, li ma gis nag nii mooy Sonko moom la ñu sonn rek waaye du nekk candidat waaye nag nañu moytu bu joxoonee kenn kooku mun naa doon candidat boo xam mun naa sonal nguur gi de. Euh, aura un candidat redoutable. ndax nak dañuy reporter présidentiel yi ñu koy ci côté pouvoir ak opposition bu ñu ci Robert Bourgi waye japp na ni loolu du idée bu baax. Euh, du côté de l'opposition on le souhaite. Et moi j'ai vu longuement. xam nga élection yi moom moo xam pouvoir ba opposition ku ci ne am na ci ñoo xam dañoo paré pour ñu dal dàq élection yi waaye président moom li ma gis daal mooy <laughs> dafa bëgg dem. quelque part sur le départ. je crois qu'il est temps de passer à autre chose. 古诗。 yokk ni moom d'accordul ak yenn homme politique yoo xamante ni dañuy jóge Sénégal dem ba France signé fa ay contrat ak ay cabinet français ngir ñooñu conseiller leen ci wàllu communication politique ndaxte ñooñu dañoo cher naka noonu itam ñoom ñu bëri ci ñoom wuñu seen politique bu Sénégal te loolu mun indil problème bu baax a baax candidat yi ñuy conseiller. Mohamed Ali Mouba mbirum Ousmane Sonko boobule moo tax Ayib Daffé moom mooy mandataire am démb ba léegi mu ngi bàggante ci mbedd mi la demoon fole ca DGE ba mu yeggee ñu ne ko doo fi dugg tey mu xëyaat andak ak euh, euh, di euh, andak ànd kenn ci avocat yi di maître Cyril Clédor Ly wutali caisse des dépôts et consignation bañu yeggé woy melnam woy bi lañ leen woyat ne lañ fi du ngeen fi duggu ñu ne nak lolé du deug di yoon ndaxte dogal bi yoon jël ci mbirum Ousmane Sonko bobu le dañ ko wara jëfé jëfee Nafisatou Sila. dispositif bu xaw a takku nag la ñu ngir daldi di yoonu mandataire Ousmane Sonko té ci suba teel la police daldi yabal ap fourgonnette ak ben pick-up ci buntu caisse de dépôt et de consignation nekk kenn du ngir Ayib Daffé nak li ni dara jaru ko fi. normalement comme ñom lay buñu amone moy Ousmane Sonko nekku ci liste électorale moo warul déposer caution tay nak delloo nañ ko ci liste électorale am nañ décision de justice bo xamné tribunal d'instance hors classe de Dakar moko jël l'honorable juge Racine Thion moko jël donc muy décision exécutoire et définitive donc ñom nak lu len déssé mooy ñu jox ñu suñu attestation tay nak lool moo ñu fi indi won mais gis nañ ni euh, ah comme amatuñu lay comme amna amatuñu alibi amatuñu prétexte manam luñ doon euh, jéem a indi comme alibi jeex na lu leen dese mooy sant police police ñoo bloqué ñu sa entrée ne tey duñu dugg. ñoom ñu ànd ak seen huissier de justice ngir def si euh, constat bile. huissier bi nga xam ne day def liggéeyam kenn warum kaa tere mu dugg ci service public tey ñoo ngi si kanam benn service public boo xam ne moom dama ne tey service public bi mandataire Ousmane Sonko avocat wu huissier bi kenn du fi dugg donc lu ñu doon def tappale caaxaan yooyu ñoo doon def tey feeñ na leer na nañ ñun nag dañuy continuer suñu liggéey si jàmm ak salaam lu ñu war a def yëpp nañ ko def xam naa ni conseil constitutionnel nañ ko yëgal loolu yëpp ne ko lii xew na fi àddina bi yëpp yëg na ko Sénégal yëpp yëg nañ ko banditisme administratif rek nañ ko mën a tuddee mënuñ ko tuddee leneen. dugg bi tamit noonu lañ ko teree kenn ci avocat yi Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly moom mi ànd ak mandataire bi ngir daal di récupérer attestation de dépôt bu chèque bi ñu fi defoon fan yi la ñu génn. li fi am moom moo di réewu alkaati léegi nag ñoom ñoo xam luñ ci jublu ñun xam nañu fu ñu jëm te lépp dafa leer suñu bopp justice moom moom mën a teg réew mi ci raay léegi nag tere nañ ñu joxuñu ñu suñu kayit tere nañu ñu ñu agsi dugg ci biir service loolu kenn mësu koo gis ci réew fi mu ne ndetteeral ci la réew mi nekk. tey jii de kaw Ousmane Sonko ne justice li mu wax dafa leer te dañ ko war a nangu ba noone muy ñaawlu pexe yi nga xamante ne nguuru Sénégal mi ngi koy jël jaarale ko ci administration publique ngir gàntal Ousmane Sonko bokk ci élection yu 2024. Ayib Daffé ak ay avocat yu Sonko dina sakay nocci ngir fexe Sonko ci boppam bokk ci élection présidentielle gi ñuy waaj amal ci atum 2024 kenn ci euh, candidat yi déclaré ci élection boobule Aly Ngouille Ndiaye ma nga woon ca Kayar dem na fa dajeek nappkat yafa nañ ko nag seeni euh, tolof-tolof ba mu jëlee kàddu moom Aly Ngouille Ndiaye euh, nee na daal war nañu lijjante autorité lay waxal nee nañu war nañu lijjante xeex wala boog fitna gi war faral di dox diggante nappkat yu Sénégal ak ñi yore ay bato bato yu fekk baax ca biti réew ñëw di napp ci waaxu Sénégal yi wax na it ci wàllum mbëkk mi nga xamante ne sonnal na lool nappkat ci ci atum ren ji Cheikh Anta Diop Aly Ngouille Ndiaye fii ci Kayar nappkat yi teeraw ko ak ay jafe-jafe di ko yuppi ci kanamam. moo problème bi nga xam ne moo moo ñu sonal muy géej gi ñu nekk nii. moo sunu yaakaar ñun ñëpp képp ku def fii liggéey géej gi moo la tax a jóg mais fi mu toll nii taxaw na taxawaay boo xam te ni. métti na te jaaxal na waa Kayar. kon monsieur le xam nañ sa yéene ci Sénégal. géej gi nga xam ne mooy yaakaari Sénégal. dañoo bëgg sa programme nga boole ko ci. Aly Ngouille Ndiaye mii ne candidat la ci élection présidentielle yi di ñëw. waaye nee na de di ko gën a metti bépp waax bu mu dem gis na ne ndaw ñaa ngi yéeg ci gaal yi di dem ci Espagne rawatina fii ci Kayaar. ndax kenn ku ne gis na fan yii ñu dem li fi jógee Sénégal bari na dem xayma nañ ne diggante le premier septembre deux mille vingt trois ak le douze mille vingt daanaka quinze mille sénégalais dem nañ Tenerife loolu nag bari na moo tax nag pour ñu mën ko trouver solution faaw ñu ñëw càmbar waaye waxtaan ak yéen. nappkat yi ak ñi nga xamante ne ñooy coppar ñi jën yi ñoom it àgg nañ ko jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko eh, ci géej gi ndaxte nee nañ bateau yi nga xamante ne ñooy napp si fii seeni waax indi nay jafe-jafe waaye Aly Ngouille Ndiaye tontu leen ne. am ngeen ay jafe-jafe pour dem ci géej gi napp ndax peut-être que am na également ay saxaar yu mag yu fa nekk di xëccoo ak yéen jën yi ci yenn endroit yi loolu bokk na ci problème yi. ci Kayar muy wax na fi ay jafe-jafe ndaxte ay ndaw yu bëri de ñoom ñoo génnoon doon yuux ngir sabote daje bi nga xamante mi ngi ko doon amal ak nappkat yi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ak RFM Sey coxeur la moo doon toppatoo woto yey daw diggante Mbàkke ak moom la ñu xëy tey fekk mu ñàkk bakkanam ca marché ocas ba tey xamuñu la ko faat. néew ga nag sapeur pompier jël na ko yóbbu ca hôpital Matlaboul Fawzeyni police ubbi na ca ab enquête euh, délégué principal yu commerçant au marché central bu Kaolack Lamine Daw boobaak léegi mu ngi woon ci loxol yoon euh, juge bi ba na ko tey. Euh, li ñu ko doon toppee mu di diffamation loolee nag gannaaw plainte boo xamante ni maire ba ca bokkam euh, boppam di Serigne Mboup moo ko plaintoon ndax ne daf ko sosal euh, ñu wax ci fitna gi ñàkkum kaaraange ca Sorentew mu ngi nekk ca Kédougou ay def ka ci ñaawteef ñoo ko dal ci kaw ay nit yóbbu fanweeri gramme ci wurus maanaam or yóbbaale it lu ëpp ñetti million ci sunu koppar Ibrahima Jabaxate bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeekoo fële ci Soreto ci juróom-ñetti fan ci mois de décembre bi weesu ci boori vingt heures la ay samba booy song benn boutique fële ci diwaanu Soreto localité bu bokk ci arrondissement bu Kéniéba fële ci biir département bu Bakel ginnaaw seen braquage bi dañu daal di yóbbaale ñetti millions ak genn wàll ak fanweer gramme d'or bi ñu doon daw dugg biir Mali dañu daal di bàyyi ci barab ba benn duy PA bu neuf millimètres ak benn carton cartouche PA bu neuf millimètres bi nga xam ne kenn utilisé ko bi yi ci biir opération de sécurisation ci takk der yi amaloon ci zone boobu jot nañu teg loxo ci benn ressortissant burkinabé te mu chargé ci kaw moto am ay explosif ginnaaw ñu ko jëbalee ci loxo police des frontières bu Diabougou ubbi nañu benn enquête pour ñu xool lan moo waral yëngu-yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel ci département Bakel Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. jéego gi Kédougou dem ca Tambacounda fi ñuy wax euh, ci Daaru Salaam mu ngi nekk ci département bu Tamba foofu nag. ay sàmmkat ak i béykat ñoo fa doon xeex am na sax ñeenti nit yu ca jëlee gaañu gaañu am na ciy amay gaañu gaañu yu métti leeral yëg Pape seenu Diallo. xeex bu métti la nemeeku ci dëkk bi di Dar Salaam nekk ci diwaanu Tambacounda ay béykat nag ñoo tuumal benn sàmmkat ni dafa dugal ay xaram ci seeni tool. lu ñu mel nag ba mu amee nag ki nga xam ne moom mooy sàmmkat bi nag dafa daal di jël li nga xam ne moom mooy semmiñ daal di gor kenn ci béykat yi ba mu ñàkkul loxam béykat yi nag ci lañ ko daxee jàpp ko nag daal di ko dóor dóor yu métti ba mu jëlee ci ñaari tànk yu dàmm bu dul woon gendarme yi nag béy wey mbuus ba tax na ki nga xam ne moom mooy sàmmkat bi nag ñii di béykat yi dañ ko bëggoon taal ñu jël leen ñoom ñëpp rawale leen yóbbu leen ci hôpital régional bu Tambacounda moom sàmmkat bi nag di Alassane nag defeere nañ ko démb ci parquet bu tribunal bu grande instance bu Tambacounda Tambacounda Pape Ousseynou Diallo RFM. pouponnière bu Ndella Madior Diouf ndax xam ngeen ne fan yu lay passé ñu ngi ko doon wax gannaaw ba fa benn bébé ñàkkee bakkanam waxaat nañ ci gannaaw ba mu fa amee benn kidnapping bii paa benn vidéo la ñu siiwal ci internet bi ñu ne dafa rëcc ci vidéo bi ñuy gis ay bébé yu ndaw yu xiiboon lott lool ndeela Amar àdduna ci nee na ña ko def saboté rek moo leen tax a jóg waaye moom mu ngi ci règle vidéo bi daanaka fës na loolu ci internet bi lopp fukki xale daal tëdd ci ab matelas ñenn ñi daal di jaaxaan ñenn ñi banku benn poñ nag la ñu bokk moom liiri yile moo di dañoo tuuti loolu mu mel ni nag dañoo am jafe-jafe ci seen po wér-gu-yaram mbaa sax seen prise en charge waaye Ndella Madior Diouf yi nga xamante ni moo yor pouponnière bi ñuy woowee kër yërmande daal di ne ab sabotage la ñu def ci vidéo bile waaye xale yi meluñu nii laa si doon wax comprendre ce qui se passe parce que man xaw ma lu xew sama assistant moo def vidéo bi filmé nee na rendu si compte ma ne ko comment peux-tu filmer des enfants yo xam ni leen di waaj sang nga ñew leen di sang xali nga nga ramasser salle bi filmer comme ça comment peux-tu faire ça c'est incroyable donc qu'est-ce qui s'est passé donc j'ai été infiltré par des nounous carrément pro Sonko carrément ñu ñew saboter la pouponnière ah yenn xali am jaare donc yoy yenn xali yi bi ñu amee jaare nga gis quelques xali yu jeex ñu hospitaliser len lopp ëpp ben fukki bébé la Ndella Madior Diouf daal day yor ca kër yërmande mi ngi dikkaat nag ci nan lay def ba xale yi mujjee ci ay loxoom. man amu benn xale moo for si mbedd. Euh, ñoom ñoo dëkk sama kër. Foire sacre Cœur wala Saly wala Simal wala fépp foo xam ne kër googu si man la dépend ñu làkkatu ma suturaal leen ndekki añ reer fay analyse échographie fay accouchement ah toppatoo leen toppatoo xale bi ñu ñu ñu doog a dem suñu demee am ñoo xam dañu wane ginnaaw dootuñu mos a ñëw Ndella Madior Diouf daal di ne day xeex jur doom sàndi mbaa sax jur doom fat bakkan looloo waral mu ubbi pouponnière bi le jàppale soxna yi nga xamante ni dañoo wan lor te bëgguñu ëmb bi te bëgguñu ëmb bi direction petite enfance nag biñ jokkoo ak moom ci coow li nga xamante ni am na ci pouponnière bu Ndella Madior Diouf nee na xamagul mbir yi nan la tëddee dana fa dem def fa ab visite bu ca noppee daal di soog a waxtaan ak ñun. Fama Dione ayam taalibe loolee nag angale la waaye lu mu tekki mooy taalibe la loolu moom mooy turi association bi eh, ñu sos fële ca Fatick la ko tax a jóg mooy fexe eh, gën a ñoŋal eh, nekkinu taalibe yi ci daara yi ci noonu sax dem nañu ci lu toll ci ñeent fukk ak ñeenti daara ya ca commune ba séddoog ñoom lekk. Euh, ci noonu la ñu ne war nañu xoolaat bu baax a baax anam yi taalibe yi nekkee ci seen seeni daara Aminata Goudiaby fépp fu association ayam talibé jaar rek ci daara yoyu mbégte la def ci xolu talibé yi lu ëpp tuuti ñen fukki daara yu nekk ci commune bi dem nañ fa fa lu tollook ñaari wër nak dañ doon togg ay xéewal yu am solo doon ko bokk ak taalibe yi nga xamni ñom ñoom ñoo nekk ci daara yoyu ñu jaar mu nekk nak experience bo xamni ñom neex na leen ñom ñi nga xamni ñom ñoom ñoo sookee mbir mu ni mel Valdiodio Diouf moom mooy coordonnateur association ayam talibé man lima gëna frappé moy euh, amour bi nga xam tay tey créé nañ ko ci mais solidarité bi parce que mënoon nañ di togg sa di togg benn affaire rek peut-être jox leen benn hamburger wala jox leen euh, lekk bokk dafa barkeel. association bi nag ñi ko séq ñoom ñëpp ay ndaw lañu li leen tax a jóg rek moo di soppi nu taalibe yi ci biir daara yi. jàngukaayu xale yi doon nañu lu ñu ëppal solo mooy mbaar yi nga xam ne ñu ngi koy tabax parce que xale yi dañ doon toog di jàng si naaj bu tàng ñuy gis wala ñuy toog di jàng si si suuf yi sàkket te dama naan xale yi nga xam ne ñoom ñooy jàng arxuraan ñoom ñoo mérito classe yu baax yi kon ñooñu kon warul leen yéene lu dul sarax ak yëre yu xotteeku wala di leen bàyyi si ay mbaam ñuy jàng moo tax ayam taalibe taxaw ay bénévole lañu li ñuy def kenn fayu leen ci dara seeni budget bëriwul naam sax léeg-léeg am ay bonne volonté yu leen jàppale ñoom nag ñu jàpp ne taalibe yi bërëb yi nga xam ne fa la ñuy nekk di fa jàngee dañ ko war xoolaat bu baax a baax ndax sëriñi daara am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi góorgóorlu ba xale yi am ñoo xam ne yelwaanatun dematun yelwaanati ndékki kon ñooñu kon duñ leen jàppalee as tur rek dinañ am franchement dooy toog di ak ñoom da ngay ni ñii dal leen seetaan ñii dal leen xawu tabaayee xel action yi nga xam ne nag ñoom association ayam taalibe moom lay def mën nañ ci yokk colinu taalibe yi ndaxte jamono yu sedd bi ñu nekk dañuy wër di collecter ay ay yére yoo xam ne yu diis la ngir dem di ko séddalewaat ci daara yooyu Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata euh, Goudiaby jóge Fatick jëm te Touba ca hôpital Cheikh Ahmadul Khadim ak euh, waa CHU mu di centre hospitalier universitaire ñoom nañu def na ñoom nag def nañu jaloore euh, mu di sax guléet ci Sénégal ñu réussir benn intervention de type endovasculaire ngir daal di faj. Euh, ñi nga xamante ni ñoo amee feebaru bopp ak yeneen yu ko demee lañ ca xayma nag mu di euh, aji wopp bu nekk ñaar fukki million muy lu seer lool ñu ne nag programme bi euh, ñu ngi ko réussir gannaaw partenariat boo xamante ni dox na seen biir lépp nag ñu lal ko ci wéccooy ay connaissance maanaam xam-xam Papa Balla gi anévrisme di malformation boo xam ne ci artère yi lay am ñu daan ko opéré ubbi bopp bi yu ni mel ci Sénégal nag daan nañu def jéego gu am solo ak hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim bu Touba intervention boo xam ne ñu ngi ko naan endovasculaire ñu daal di koy amal guléet ànd ceeg docteur Charlotte Barbier bu CHU bu Kaan ak équipe am docteur Ndaraw Ndoy nekk neurochirurgien di indiwaat ay leeral ci mbir yi. Euh, li ñu liggéey tey liggéey bu rëy la. donc opération bi lan la maanaam dañuy yéegal benn cathéter boo xam ne dañ koy dugal fii ci ci ci naq bi. di ko yéegal di ko xool ci écran bi. muy suivre di ko dem di dem ba ci kaw ba mu dem ba ci biir fi nga xam ni falo la ballon boobu nekk maanaam fi mbànd deret boobu nekk bi nga xam ni baaxul sakk ko maanaam dañu fay largué balon kii balon yooyu la ñu tudd euh, ki euh, kii coils opération go xamantene amna am lol ndax serna seray go xamantene pour ben patient rek lu mu bon bon dana daal di jar lu ñaar fukki million docteur Ndaraw Ndoy bok ci service neurochirurgien bu hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim di xamle ne ñu ngi xaar ab transfert de compétences liñ dan li ngay may nit ki bis bu nek mu dem jënd jënd jangal ko nap mo gën donc loolu la bëgg defante ak ñom té mom d'accord adhéré na ci ci proposition yoyu avec docteur Ndiaye euh, le directeur monsieur Moustapha Souran ak toute son équipe donc je pense que et le ministère de la santé bien sûr euh, dañ transmettre aussi liñu gis tey xamni lolou loolu réussite la bu baax baax baax yaakaar na ni euh, bu ñu jàppale daal dañ jëm kanam te bu ñu jëmee kanam maladie dañ gën a tane lu ñu defuñu ko sax pour Touba pour Sénégal gi yëpp la pourquoi pas pour la sous-région. ñaar ci doomu aadama yoo xam ne ñoom la ñu njëkk defal intervention bi gannaaw lëkkaloo bu am ci diggante hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim bu Touba ak CHU bu Kaan ministère de la santé moom itam fas yéene na taxawu projet googee ngir fexe askanu Sénégal daal di mën a faju rawatina yi wër Sénégal Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. borom camion yi tonni mbalit mi ci mbedd mi xam ngeen ne fan yi yëpp ñu ngi woon ci grève grève boobu nag dakal nañu ko loole gannaaw ba leen góor gi joxe eh, juróom-ñetti milliards ngir fay leen seen i arrière yi yu mu leen amel ci premier semestre ci at mi waaye nag ñoom eh, ne ñu daal bàyyeeguñu fa ñu ngànk ba tey ña nga fa ndax dañoo bëgg ñu fay leen lii di ñaareelu semestre bi ci at mi sàkku nañu it ñu yokk budget bi ñu jagleel wàllum eh, nettoiement maanaam tonni mbalit meek lu set geek setal gi ci réew mi bu Boubacar Diallo mooy secretaire général collectif gi ëmb ñamoome ay camion yi tonni mbal ci mbedd mi ñu ko kook alaaji njogu jeen depuis àjjuma ñu ngi taxawoon waaye démb ci ngoon euh, kilifa gi directeur général u SONAGED daf ñu dal waxtaan ak ñun woon ñu xëy na li dal suñu xel xamal ñu démb ñoom lañ engagé woon pour fay ñu mais mu xamal ñu lan moo waral retard yooyu ci biñ ci waxtaanee ba pare mu jox ñu ay assurance que ne tey jii ci àllarba ji incha allah dinañ jot liñ leen doon toppee am na kenn si ñun koo xam ne moom wax dëgg yàlla woon na ma nee na moom moom moom jot na ko mais comme tey ci ngoon incha allah dinañ def une réunion d'évaluation pour xool niveau d'engagement bi fan la toll comme ça loolu dinañ ci mën a àddu deuxième semestre bi ak beneen point bi yooyu yëpp nag comme biñ ciy waxtaanee ak kilifa gi parce que keroog suñu ministre de tutelle si Abdoulaye Seydou Sow daf ci waxtaanoon ak ak collègue am le ministre des finance et du budget ba kooku dalaloon ñu kooku bi ñu dalalee la loolu def ñu ñaanoon ñu may ko ba le cinq janvier incha allah ñu dellu fa pour a mën waxtaan sénégalais yëpp gis nañ ne vraiment ay effort yoo xam ne secteur bi def na ko ak niveau de satisfaction boo xam ne commencé nañ ko am mais loolu yëpp nag li ñuy wax ci olof rek ku dolli cere da ngay war a dolli ñeex donc c'est dire que plaidoyer la boo xam ne ñun dañ koy def pour que gars yi jéem a li ñuy xaymal euh, anam mbalit bi ñu yokk ko tuuti pour une meilleure prise en charge mu nekkoon kàddu yi Boubacar Diallo mooy secrétaire général euh, bu collectif gi ëmb concessionnaire nettoiement yu nekk fii ci mim réew dépôt carburant bi explosé fële ca Guinée Conakry euh, lu jege ñaar fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan lu jege ñaari téeméeri nit jëlee ci ay gaañu gaañu mu di nag tiis gu métti boo xamante ne law na ba ci Guinée yay nekk fii ci Sénégal responsabilité bi nag autorité ya ca réew ma la ñu ko yenn reportage du Nourou Ba ab entrepôt buy denc carburant dal di explosé ca réewum Guinée altine bi weesu. ay doomu Guinée ne fi ci senegal ne ci nakar bu doy waar. vraiment affaire bi métti na ma trop trop trop xamante ne ndogal yàlla la quoi yàlla bu dogalee moom mënoo ci dara. bu defee moom dafa yéeme trop. waaw bu amee moom c'est pas normal daal. Alpha jaaykatu café la ak tamit carte de crédit ne monté.

c'est ñii di ay doomu Guinée nag dañoo gis ne lii du kenn ku dul état bu Guinée moom mooy responsable ci bi la jëyee. gis ne leneen lu dul càggante.

benn fan ci weeru décembre lañ leen jàpp te Ouagadougou réewu France nag di wax ne ñeent doomam yooyu ñu jàpp ay technicien en informatique lañu yu ñu woon en mission ca ambassade bu France ba nekk ca Ouagadougou di dolli itam ne ñi ñu jàpp am nañu passeport diplomatique yu légal suñu sukkandikoo ci RFI nee na français yooyee ñu ngi leen tëj actuellement ca maison d'arrêt et de correction bu Ouagadougou ñu ngi leen toppee wàllum espionnage Jeune Afrique moom mi ngi dëggal ne effectivement ñooñu ñu bokk ca direction générale de la sécurité renseignement bu France ñi ngi ñëw nag ca Ouagadougou ngir benn mission bu officielle gouvernement bu France nag nee na loolu dara du ci dëgg ñooñu ay fonctionnaire lañ te ay technicien en informatique lañu te nag nee na ngi suivre dossier bu baax a baax a di ñaan ñu leen ci num ay waxtaan nag mi ngi am gouvernement bu Burkina Faso ak bu France ngir ñu bàyyi France yooyu ñu jàpp ca Ouganda moom gën kaa tuuti fukki nit la ñu faat euh, taal leen ci ab cong nga mu ngi ci ab village bi ci sud-ouest dëkk ba cong googee nag ñu ne ay euh, rebel bokkee ci force démocratique alliée ADF te euh, jébalu ci euh, groupe islamique groupe état islamique ñoo ko def porte parole bu police ba ne rebelle ya ñoom daal dañoo yàq sax fa ñuy jaay koy jënd yóbbaale ay saaku ñebbe maïs naka noonu itam nen laata ñoo def laata ñoo daw cong googi nag mu ngi am talaata armée bu Ouganda yóbbu nañ leen ca bërëb ngir ñu saytu karang kaaraange ña fa yeewoo. maïs moom du mboq. mboq <laughs> ay ci Georges ñu dem te République démocratique du Congo ci subaak léegi ña ngay woote 44 millions ci ay électeurs ñoom ñooy woote ji wala boog ñoom la ñu woo ngir ñu woote fal président de la République député yu réew ma ak député yu province ya naka noonu itam njiitu réew ma jamono ji di Félix ci Tshisekedi bokk na ci jongante bi bëgg ñaareelu ko mandat euh, tey ci suba nag nemmeeku nañ ne yenn bureau yi euh, yu bëri sax teelu ñoo ibbi waaye commission électorale bi dalal xel yi ne euh, daañu leen bàyyi ba nit ñi mën woote bu baax a baax mu di nag bu njëkk euh, bi RDC euh, nekkee amee indépendance am ba léegi ñu nekk ci bitim réew di ay doomi Congo di wote waaye fii ci Ndakaaru moom congolais yi duñu ñu wote Boubacar Dieng eh, dem doxantu ca ambassade bu république démocratique eh, du Congo fii ci Ndakaaru. gannaaw ay simili ñuy wër bërëb bi ñu mujjee gis fi nga xam ni mooy ambassade république démocratique du Congo fii si Ndakaaru Ndiaye mbetteel la ñu am bi ñu duggee biir gisuñu fa benn nit lu nga bi amul kenn ko hamni ni ñëw na fii nag ngir daal di woote si ñaar ñooñu le nangoo ñoo àddu suñu micro xamal le nag bésub férié la ñi nga xam ne ñoo teewal république démocratique du Congo fi Sénégal du ñu liggéey te itam amul kenn ku fi ñëw wote si li mu xamle moo di bi mooy guleet doomi kongo yi nekk bitim réew mën a sànni seen xopp ngir fal ki nga xam ne moo leen doy ngir mu toogal leen seen bopp réew ci continent bu Afrique Afrique du Sud kese la congolais yi war a mën a wote te foofu le sax fa la ñu ëppee boo xoolee àdduna wërngël këpp lu ko wees ci Belgique Canada ak sax fi nga xamni Modi États-Unis sélection générale yi CRDC ñeent fukk ak ñent million doomu adama war nañu dem woto ji njiitum réew di Félix Tshisekedi sampat ndëndëm ngir ñu falaat ko wante nak amna fuk ak juroom ñetti nit yo bëgg président bokku na ci Moïse Katumbi Martin Fayulu wala sax ki nga docteur Denis Mukwege ñu prix Nobel de la paix ci atum 2018 Lo aji élection législative wala sax gogoxaan yi candidat yi ëpp nañu junni di dem élection yi li si gën am solo moo di ni dañ koy amal si jamono joo xam ni wàllum karange dafa soxe lool fi nga xam ni mu di république démocratique du Congo. guerre ga ca Proche-Orient conseil de sécurité mbootaayu xeet yi bëgg bokk benn kaddu addu ca euh, mën naam nag euh, àllarba tey gii nii ñu wote ab résolution ngir ay woy jeex foofu ca bande Gaza wote boobu sax dañ ko puus ñaari yoon jamono jooju Hamas manga nga euh, Égypte euh, fasciné waxtane itam ab euh, trêve ci xeexoo gogé guerre googu diggante Israël ak Hamas ci Gaza ak itam wecconte ay prisonniers ci France lañ koy jeexale ak Emmanuel Macron mi fas wax tay ci ngone ci France 5 mo dana don invité bu émission bi c'est à vous mu di muy am ëllëg gannaaw biñu adopté projet de loi bi nga xamanté ne dafa indi coow fofu ci France di projet de loi jëm ci immigration euh, qui a euh, communiqué télé ne Emmanuel Macron dana addu ci euh, la nga xamantene mo xew ci atub 2023 ak la nga xamantene itam ñu ngi jublu ci atub 2024 sànq ñu porte-parole bu gouvernement bi xamle ne wala mu dëggal ko démission bu ministre de la santé Aurélien Rousseau. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu ngi lay gërëm may sambay ñëwoon. RFM Sport. Euh, Barthélemy Diagne ñëw def sant rek ak euh, poos yu bëtt ngoom poos yu bëtt taw wallaay wallaay yàlla baax na wallaay mhm. ayca ñu tàmbalee ko ci coupe d'Afrique gi ñuy waajal naanu ca dem euh, kii di entreneur bi nag Aliou Cissé

liste bi nga xamante ni Aliou Cissé daal dina ko siiwal day wane ni moom dafa compter ci yi nga xamante ni ñoom ñoo gagné woon Coupe d'Afrique bi weesu woon ca Cameroun waaye boole na ci ay gune yi nga xamante ni yaakaar mën naa am ci ñoom ndax ñoom itam jot nañoo gagné ay compétition continentale fii nii ci Afrique laata ñu wutali feneen si ñooñu le mën nañ see boole arrière latéral bi di Cheikh Tidiane Sidibé moom nga xamante ni mu nga ci Azam FC ci Tanzanie ak itam naataangoom ba nekk ci équipe nationale locale di Mamadou Sané léegi di football ca Limassol ca Grèce bu ñu xoolee milieu terrain bi Pape Amadou Diallo moom mi nga xamante ni jour génération foot la woon mi ngi ci préliste bi waaye beneen seetlu bi moo di am na ay jours yi nga xamante ni daanaka kenn xamul leen ci équipe nationale bu Sénégal ndax bëri ñu fa tànk wala sax masuñu see ñëw ku ci mel ni Ousseynou Ba nekk ca Başakşehir ca Turquie Ibrahima Mbacké Fall di évoluer ca Barça Athlétique ak itam ñeneen waaye mën nañoo jàpp ni seen chance ngir mën a bokk ci Coupe d'Afrique gii de néew na loolu Abdallah Sima moom mi nga xamante ni ma nga ca Écosse di toj championnat bi bokk na ci yi nga xamante ni Aliou Cissé dal na leen woo ngir yu bokk ci pré-liste bi ba tax na yaakaar mën naa am ni moom sax dana bokk ci liste définitive bi Amara Diouf moom mi nga xamante ni day évoluer ci petite catégorie daal di toj équipe nationale yi nga xam ne jot na faa jaar boobu ak léegi liste bi nga xamante ni ñu bëri ñu ko ci doon séntu nekk ci ndax Aliou Cissé jëlu ko. Nous, waxtane football France fukax ak euh, juróom bi journée dem Noël Paris Saint-Germain tay dina dajante ak Lamine Camara ak France Parc des Princes lay donne Euh, Montpellier dafa jongante ak waa Marseille Marseille ñaari doomu Sénégal a nga fa Eliman ak Ismaïla Nantes itam dañoo dem jongante ji ak waa Lyon Toulouse dalal équipe bu ko bu Crépin Lens dafay jongante ak waa Nice ci Angleterre dana wéyal quart de finale jëm si wàllu League Cup bi Liverpool bu juróom ñetti waxtu si guddi jotee dina laale ak équipe bu West Ham ñu wax ci euh, wàllum làmb ji malal am na lu yees loo xamante ni bëgg nañ ko tàmbalee jëfee ci arène bi. mooy fexe ni ba moom ay combat jànq maanaam bëre buy dajale ñaari mbër yu must te loolu foo mu am. fala bu doon ñu jaaree ci diggante ñi gën a mag ci arène bi te gën a yàgg ñu booleen ak seen i rakk yi ñëw di fëgg ngir doon ay kilifa ci lamb ji loolee moo waral ñu gisoon fi combat Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang wala yeneen combat grand contre petit loola nag bu ñu sukkandiku ci Abdoulaye Dembélé nekk ci suñu lamb doxalin la bu yees bu war a tax lamb ji am nokki gu bees lu déglu ko dañoo defoon benn constat te bokk ko ak toutes les composantes de l'arène moo di lan moom mooy que ni euh, jàppoon nañ ni ay revanche yi daan am ci làmb dafa dafa dañ demoon ba nekkoon ay revanche yi soof amateurs yi dem nañ bi xaw a parce que boo xoolee Modou Lo ak Lac de Guiers 2 bëri nañ xama deux ba trois fois Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène bëri nañ trois fois xam nga noonu la demee si côté Balla Gaye ak Modou Lo ñu defee constat bi ñu jàpp ni ñi bu ñu tolloo niveau boobu noonu si kaw si VIP yi rayantewuñu dara assisté tuñu si ay combat yi am solo ay combat yi nga xamante ni yi dañ koy soxla loolu tax na ba sponsor yi demoon nañ ba la ba daw làmb ji parce que combat yi ñu doon dund la mais bu ñu expérimenté ñu jàpp ni làmb grand contre petit muy gën a dundalaat làmb buñ ko expérimenté depuis daaw gis nañ ni loolu am nañ ci dëgg parce que Balla Gaye 2 Boy Niang le premier janvier 2023 ñëpp gisoon nañ niñ ko dundee ñëpp gis nañu nu mu neexee woon nu mu amee woon engouement autour de ce la saison bi Modou Lo Ama Baldé ñëpp xam nañ ni combat bu amoon solo la donc ñu ngi ci logique boobu noonu effectivement le 24 décembre bi euh, rëg-rëg dina bëre ak ki nga xamante ni moom mooy euh, bombardier rëg-rëg ni nga am 32 ans bombardier c'est le doyen actuel de la lutte en activité donc ñooy wonee nii ci logique boobu lañ nekk maanaam malal suma la déggee mooy euh, amatul diw daan na ma damay jël revanche. waaw loolu moom jeex na sakk ci làmb ci ndax ñaar ñu mosul bëre rek ñooy bëre. ñi fi nekk nii di bëre seen di bëre mosuñu laal ak ñi fi nekkoon. Hmm. te ñi fi nekkoon itam gannaaw dañu bëgg dem dañoo bëgg ja laal ci xale yi ak as lëf raas ci ak xale yi comme ko nu muy def. soo hmm. soogam di dem Zarko xam nga dafa demoon fa tugal. waaw moodu moodu. Hmm. ñibbisi ñu jox ko bàyyi mu njoon ay mbokkam lëng mu ñibbi. ñu jox ko mbay guy gi ay mbokkam lëng mu ñibbi. ñu ne Ada Fass dina ko arrêté mu dóor Ada Fass ay mbokkam lëng mu ñibbi dimanche ji weesu jox nañ ko jën kayre mu teex ak ay mbokkam lëng mu ñibbi léegi nee nañ ko jox Lac de Guiers numéro 2 Zarko Lac de Guiers combat jànq la mu suta am mhm. rëg-rëg bii war a bëree gannaaw dimanche ji di ñëw mhm. ak ak euh, bombardier mosunoo bëre mu mhm. ñun ñaar sax ku ci nekk di nga def sa face à ak sa ay mbokk ak sa open press kii bésu àllarba tey jii ka ca topp bésu alxamis alxamis bu ñu ci anda ñun ñu ànd ak auditeurs yi dimanche ca làmb ja mhm. dégtal leen ko bu ñeent waxtu jotee ba keroog jël am dara du leen ci um waaw mais revanche bi tamit yenn saa day neexal làmb ji de léegi nag combat comme dañ dañ ci combat mhm. sama avance Jadi <laughs> ñemee gu ma xaaral xaalis dina am jëlal avance bi rek bu ragal bàyyi ma dem lekkaat cere ba ca kanam wala jox ma Cheikh Tidiane waaw Cheikh de nga jël <laughs> malal sticker rapido Touba Darussalam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL axel de marque bi direction de la santé mère enfant Soumari.com, Kenkeri le grand jachai, Nyonini maïli ni may li ci Ndiaye jërë ngeen jëf bilan bu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal musiba la Mamadou Ndoye moo ko wax ci xët mu njëkk l'Observateur Mamadou Ndoye mooy ki ne woon jamono secrétaire général bu parti bi di na muy Macky Sall ci boppam di bilan ñu mu àndal lépp catastrophe la ci waxtaan wu yaatu yu mu séq ak wàllu Observateur moom Mamadou Ndoye ma nga fay ñaawlu ak a naqarloo ko mitit lu tëj gi ñu tëj université Cheikh Anta bu Ndakaaru dem na ca bay xam le ne booy seet mbir yi sabotage lay niroo Amadou Ba mi ñuy def candidat bu Benno Bokk Yaakaar Mamadou Ndoye li mu jàpp mooy bu lépp jaare ci yoon deuxième tour sax waru a yegg mu ne tax Macky Sall mi ko tànn teg ko ngemb ko moom ci jëmi boppam bu ci élection présidentielle 2024 yi du jàll wàllu observateur ak moom ci coowal miliyaari Qatar yi ñuy tumal Ousmane Sonko Mamadou Ndoye lam ci wax mooy loolee ay caaxaan la nañ wax farata yi te bañ di divertir nit ñi ak xaalis bu jugee ci meneen réew mu mën doon ki ñuy tumal financement bu Qatar bi di Ousmane Sonko si du côté mi ñuy xamal ne génnagul ci mbàll gi ba léegi ne candidat yiram konsesional conseil constitutionnel mi ngi gën di taq koyot for collusion mi ngi koy yot fils de parrainage muy laaj ba ci ne démb rek ab mandataire am di Ayib Daffé ànd na ak uc justice ñu ànd ak avocat bii di maître Ciré Clédor Ly waaye ba ñu gontee dem ca direction générale des élections ba ñu yeggee dugguñu la nañu li bëggoon mooy dem ca direction générale des élections yegge leen dogalu justice bi nañu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi des élections da leen a tëjal ay buntam nañu donte tribunalum Dakaaru ci liste électorale yi waaye muy direction des élections di waa daaf fa ñu taxawoon fa la ñu ba ñu àndaloon démb ba ñu demee démb ca direction générale des élections ne dañ doon jëli fiche de parrainage yi Ousmane Sonko yi dara toppewu leen fa loxoy neen la ñu dugg sax defuñu ko waa direction générale des élections di leeral ci yéenekaay bi li tax ba ñu taxaw fi ñu taxaw nee nañu li fekk dugalaatuñu Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba mu wéer leen péng duñu ko mën a jox fiche de parrainage am soit di ñu baaxee ci xëta mu njëkk plan bi Ousmane Sonko nas ngir ñu ñu ko tëjalee buntu direction générale des élections ab mandataire am ak i yéene mooy ànd ak seeni huissier dem ci ministère de la justice dem ci ministère de l'intérieur ak ca caisse dépôt et consignation mi ngi ñuy xibaar it moom suur suwaane Ousmane Sonko dana déposé ji ab dossier ca conseil constitutionnel candidat bu benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba le public yéen a nañu congrès d'investiture bi ñu ko waroon a defal do am ab conseil national dañu koy defal ca hôtel King Fahd Palace téeméeri maire ak fanweer ak juróom-ñaar journal lay fo nañu ñoo takku ba dëgër jëm ci defante collectif réew mi ay maire wàtt ci mbeddi dëkk bi di def ay doxi ñaxtu ak i toogaani ñaxtu la ñuy ñaxtoo ko xultu di sàkku ñu réglé leen ko ñoom maire yooyu journal l'info ne nañu mooy bokk na ci mise en place généralisée bu PACASEN rural bokk na ci koppar yu PNDL bokk na it ci agent yi newoon ci xëyu ndaw ñi ak ca feera arriéré de salaire ñu leen ameel ñu fay leen ko ba mu jeex tàkk coowal faux billet kañ lay dem ba jeex tàkk ci réew mi ci diggante weeru avril ak décembre ñu nekk libération ne nañu jàpp nañu ñu mujjee jàpp journal bi ne nañu àjjuma ji weesu nëmpal brigade de recherche bu Kër Massar moo ko sisir mu di ay faux billets yu toll ci ñetti milliards Malick Faye dib enseignant bu nekk ca sem de Saly moom la ñu ci njëkk a jàpp ginnaaw bi ca la ñu soog a tegee loxo yeneen juróomi nit yu bokkoon ci dil bi kane woon seen fournisseur principal ñu naan ko Saliou Niang libération nee nañu moom ñoo ko jàppee ca kees Louga fa jëm xooli la l'observateur ne moo fa xew ubbil yéenekaay bi ben waay bu ñu naan Ahmadou Ndiaye moom la ñu fa tëj juróomi ati kaso li ko jural l'observateur nee nañu mooy moom Ahmadou Ndiaye dafa amon jabar divorce bëggoon a jabar bàyyi ba bañ ne du ko mu mer ci loolee tax mu dem taal seen kër. sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis. jërëjëf Momadou Mohamed Ndiaye mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun ñu yegg si nag ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di gis-gis.

nga baal ma ma leen di delloo eh, yow euh, expert nga ci wàllum euh, sécurité ak euh, cybercriminalité laaj bu njëkk bi ñu jagleel ko monsieur Mboup monsieur Mboup gis nañu li xew ci réew mi fan yi bari na drogue bi ñuy saisir moo xam ci géej gi la moo xam ci tali yi wala sax ñu saisir ko ci kër yi boole ci nag foo billets yi nga xamante ni naka noonu it bari na temps yi lu ñu ko saisir. d' abord ban commentaire nga ciy jëf noo ko gisee loolu. Euh, commentaire yi mooy wax mooy euh, fléau yi am maanaam euh, musiba yi am ci réew mi benn gënu ci rëy ñaar yooyu. Hmm. bu ñu ko tënkee sax dañ naan ñeent la parce que dañu ni ginnaaw viol ak incendie volontaire buñ buñ ko ci boolee ñeent yooyu rek la muy phobie yi ak li nga xam ne mooy drogue drogue bi bu njëkk ay kilo lañ daan jàpp. man mi yoroon naa brigade de recherche boo xam ne dama daan jàpp ay juróomi kilo ay fukki léegi ay tonnes lañ ciy wax léegi ay tonnes la ñuy wax léegi ay tonnes la ñuy wax donte sax xam naa ne donte sax xam nañ ne drogue bi du woon pour Sénégal oh, du woon pour Sénégal waaye nag euh, bu fi jaar léegi muy wàcc ndax fii plaque tournante la plaque tournante nag mooy Carrefour karapour moom ah oto ba fay jaar man mën na faa wàcce mbaa bu jële fa hmm. kon nag drogue dañuy seet li muy def drogue dina yàq économie réew dina yàq waa réew ma te bu yàq waa réew mi ñi ci gën a bari ndaw yi lay doon te bu leen yàqee ñooñu yàqu dañuy yàq ñeneen parce que drogue mooy criminalité bu gën a bari fi mu toll drogue moo ko andi criminalité boobu nag tey jii mujj ba dégg nga xale yi tàqalikoog seen sago muy ay jeunes yu jàng ba nga xam ne dañoo war a teg dem ba kasakay ni xam di di di di di di ñu mën a jariñ dara seen réew lu dul di ko lor day andi ay agression crime yu bare bari seen boo seete li leen li leen li li ko li ko laal ci suuf drogue drogue la mhm. drogue day yàq nit yàq économie te nag lañ daan wax léegi ah wax buñ daan wax ay milliers wala ay millions léegi ay milliards lañ ciy wax te léegi li ñuy wax l' argent facile Sénégal dañoo tàmbali xaalis kenn du ko liggéey dañ ko lijjanti mhm. waaw d' accord ñenn ñi ñenn ñi ñi ne l'argent n'a pas de couleur n'a pas d'odeur noo ko amee kon nag war noo ko amee baax na te te ñiy def drogue bi nag toujours dañu xam ni ñoom seeni i jéego moo gën a bari ñiy def sécurité. Hmm. toujours dañu topp ci seen ginnaaw di leen dàq. lay dàq nag te jotagoo ko toujours moo la raw. Hmm. waaw phobie yi noonu la demee. bu njëkk dañ doo def ay millions man jàpp naa ba taay yor phobie yor ay centaine de mille wala ay million léegi ay milliards la. Hmm. waaye te li ku ko def mooy kaso bi ci boppam. dafa dafa ëpp doole réew bi kaso bi moo réew bi léegi ku ñu kaso tey bu ñu la tëjee cinq ans da nga naan bu ma defee un an wala deux ans wala deux ans et demi ñu daal di may gracier bu la fekkee yor ay milliards yoo xam ni tey jii nit mën naa nit mënu koo liggéey ndax benn milliard booy lekk benn million par bis di ko lekk ñetti at waaw ah. léegi nag euh, boo ko yoree tey jii ñoom ci seen bopp dañu mujj ba dañuy rayante parce que ay mafia lay doon mm-hmm. léegi xaalis bu bon boobu kon feebaram bu ñëwee dikk day daal di ñëw ay lawtan lay doon yu baree baree baree baree bare mhm. day yàq économie day yàq nit d'accord te ñun kat jeunes yi la ñu am suñu richesse bi gën a rëy Sénégal

moo moo moo ko gën a yombal parce que gis nga cartel euh, yi nga xam moo am si drogue bi mhm. noonu la amee tamit ci côté beneen beneen bi nga xam dañuy organiser wu comme ay industrie yu am ay chercheurs am ay ay ay experts bu nekk dañ ci am ñoo xam ne dañ ci xarañ ba pare di xaalis bu bëree bëri comme entreprise yu mag yi ni ñu defee loolu moo tax mu gën a yaatu beneen bi mooy yomb bi nga xam ne technologie bi euh, am na ko ni ñuy jàppee euh, nit ñi ci trafic de bi si kii bi buy transiter su mooy xam nga yëpp en haute mer lañ ko jàppee. Mhm. li tax mu gën a yomb mooy. coopération internationale bi nga xam ne tudd nga ko sànq ak collecte euh, partage de renseignement bi nga xam ni mais yooyu yëpp technologie moo koy moo koy facilité ñi leen di jàpp technologie la ñuy da leen di jàppale ñi nga xam ne aussi dañ koy def aussi technologie lañuy ñuy sukkandiku pour mën a réussir li li ñuy def boo ñëwee si blanchiment euh, d' argent bi euh, man dama koy sep par blanchiment d' argent kii bi faux billets yi dama koy séparé mhm. parce que am na benn boo xam ne faux billet la mooy bi nga xam ne escroquerie laa ko mooy bi nga xam ne xaalis bu ñuul bi pieds ñu yi moom la ñu transformé am dañuy jël benn nit daal di koy nax escroquer que la la ko tuddee loolu. beneen bi mooy bi gën a industriel mooy bi nga xam ne dañuy jël vrai billets yi daal di koy jël defar ko ba nga xam ne dafay niroo ak euh, billets yu billets yu bees yi hmm. te loolu industrialisation ak ak ak ak ak euh, technologie. mais mais justement nag loolu loolu moo ëpp ci lu ñuy gis léegi ñoo xamante ne dañuy jël euh, billet bu billet bu vrai bi di ko imiter di ko defal beneen billet. di ko bii effectivement loolu technologie bu bu bi moo ko indi loolu mooy parce que boo xoolee cybercriminalité mooy bépp xam ne nit ki daf koy def ba pare di jëfandikoo technologie information communication te li ko indi mooy machine yi nga xam ne ak technologie yi nga xam ne ñooy defar biir yu baax yi am na si ñoo xam ne ay euh, def ko ci ñaawteef lañu dañuy accès si biir yooyu xëy na du niroo ak biir yu yu exact yi mhm. yu vrai yi mais dina ko jege-jege boo xam ne mën nañ ci ndax lu bëri donc effectivement comme ni nga ko waxee euh, yooyu dajaloo yëpp moom moo tax euh, trafiquant trafic faux billet bi daal di yaatu yaatu lool lool lool mais beneen bi moom jàppal ne escroquerie la la gën a nekk te te te euh, Sénégal tamit euh, am na dispositif yo xam aussi aussi sur le plan de la drogue parce que boo c'était convention euh de de Vienne bobu euh, sur les sur les drogues amna Sénégal aussi euh code des drogues bi amone mille mille cent quatre ko ci ci ci ci 2007 ak la communément appelé loi loi Latmingué marine aussi ak seen dispositif yi ñu am yu xarañ yu yu mujj ak OCRTIS aussi ñu ngi def ay efforts yu bëri donc pour pour résumer daal technologie bi moo gën a yombal euh, euh, prolifération explosion en quantité et en qualité bu euh, drop, bi ak faux billets yi. Mhm. donte sax xam nañ ne autorité yi tooguñu dinaa dellu si yow léegi monsieur Thiam monsieur Mboup aujourd'hui phénomène baa ngi fi sànq waa yaa ngi wax naan ku ñu jàpp. au bout d'un an trois ans ñu bàyyi la nga dem jël jël sa xaalis tàmb est-ce que dañu war a gën a dëgëral daan yi su ko defee ñu dissuader wala boog ci sa gis-gis nan la ñu war a mën a def ngir xeex phénomène bi waaw phénomène bi mooy euh, am nga Sénégal euh, Sénégal léegi les pays dañoo am la coopération internationale mhm. <coughs> ku mel ni CEDEAO ku mel ni UMOA ak yeneen réew yi dañoo war a ut ci biir organisation ay département yu xeex yooyu bu ko defee dañu daal di day nekk léegi synergie ci biir état yi maanaam ak lëkkaloo mhm. tey ñu jëw dikk daal di bañ a facilité daal di aggraver les peines ah, daal di aggraver les peines kuñ ci jàpp tey jii war ko mën a teg loo xam ni tey jii dina mën a ko décourager bu dee ñi nga xam ne ñooy dem di ko multiplier lu toujours dañuy seet def leen ay victimes alors que ñoom ñooy nekk presque la base ci multiplication de biens yi mhm. ci drogue bi aussi noonu lay demee tey jii dañoo war a ñëw dëkk mooy ñaax nag waa police gendarmerie ak ci force de sécurité et de yi

parce que ñoo lay mën a wax ne ah ñun kat am na ku ñëw lu suñu koñ wala gis nañ fi groupe boo xam ne tey wàcce nañu ay oto wàcce nañu ay nangam ñu ngi yor nangam ñu ngi maye nangam ñu ngi def dara parce que am na alal boo xam ne ku tëb tëb tëb war ko am dañ koo def ci biir cré yi mais dañ koo war a def ci alal bu mu mën a doon hmm. comme ni banque di def am na alal boo xam ne boo ko nit yoree di ko def nenn nen ñi su bërki démb kenn xamalewu ko woon xaalis boobu war nañoo mën a xool fan la jógee hmm. lay doon wala multiplication de biais wala yeneen yu mel mel noonu yokk aussi

boo seetee département ay aussi ak ñeneen ñi ñu leen di ñu ngi leen di jàppale mais dafa am euh, euh, ñent yoo xam ne dañ ko def bàyyi xel saa nekk si yu mel noonu. Hmm. benn bi mooy euh, traitement benn bi mooy mooy moyen benn bi mooy mooy formation beneen bi aussi mooy personnel parce que lépp loo xam ne nit xam na ko ci technologie ak ci technique bu mu mënti liggéey lu mu xañ xañ xañ benn jour mën na obsolète mën na nekk mën na bañ a amul si njëriñ. parce hmm. que ñee aussi dañuy avancé beneen bi aussi mooy sensibilisation parce que wax naa gis nga sensibilisation. Moi, c'est le premier euh, le c'est le premier de la sécurité parce que yi gens ay nit ay nit def. Mhm. donc nit il faut ñu leen surtout côté noir yi moom sont gën a ñu di sensibiliser ne comme ni ko ni ko waxee du nit donc yu ngay gis sensibilisation aussi mu unité spécialiser contre la fausse monnaie dama ko ko wax ci yu il faut parce que boo seetee dafa transversal police de ci laal gendarmerie laal ci euh, douane laal ci euh, mairie kii laal ci mari ak ak pour pour pour ci ñoo ñëpp mais il faut ñu def mettre en place benn unité spécialisée contre la fausse monnaie. Mhm. nga xam ne bu amee je pense que dina lijjanti lu bëri bëri nga xam ne au lieu de euh, effort di éclaté dispersé ku nekk di di liggéey si côté am mais en synergie mu am unité boobu di ko gérer ba pare di coiffer donc je pense que yooyu sensibilisation. ak moyens yi ma la wax noonu ak unité boobu amee je pense que lu bëri bëri bëri ci ci fausse monnaie bi te moo si ëpp moo si moo si am solo parce que balaa ñuy ñëw ak yi dox yëpp mën na ko indi indi te technologie bi aussi mën na si jàpp bu baax a a baax aussi ñu yokkaat hmm. ngeen ngeen di si gën a ngeen si jàppee ni parce que yéen lu ngeen si xam rek dina xam ne aussi ñoo si wax mu nekk ñoo xam dañu xam bu baax a baax a baax aussi lépp aussi ñu defal formation aussi yéen comme ça ngeen di si euh, gën a mën a gën a mën a xarañ euh, ci divulgation ak euh, partage d' information bi nga xam ni moom la leen xamee. d' accord message bi leer na jot nañ ko jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Thiam expert en sécurité et en cybercriminalité gërëm it Mansour Mboup commandant de police à la retraite mbokk yi gërëm leen sant leen ci ànd beeg ñun. xibaar yi fii lañ ciy mag yéen mu doonoon Barthélémy Ngom ci kàddu gi may sambay ci machine bi euh, digital bi naka noonu it euh, réalisation Alaaji Njoogu Jéen chef d'édition Anarocha ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi te di ko